ay ay ay nit ñi noppi. Mm. pour que psychose peur. nappe bi euh, boo moytul sa carrière gars yi dañ fi def dix ans dañ fi def cinq ans. Mm. moytul gis nga yii nii yëpp ñoo ko organiser mm. tegee ko noonu. mais yéeguñu xam nga lu ñu yéegul. mooy euh, seen écart. waaw mën ñu ko yóbbu 300 non 350 et gis nañ ko de ñoom xam nañ ko de. non xam nga mais xam nga xam nañ. ñoom xam nañ ko de. moo tax moo tax ñu yónni seen journalistes yeeg seen chroniqueurs yi leen. di di di pour suul di pour suul débat boobu. gis nga débat boobu moo am te gis nga yàlla. Mhm. li tax ma naan Ousmane dafay bàyyi xel nay bàyyi xel yàlla. Mhm. parce que moom moo fi waxoon forme. ab yaa am solo. moo salte man dégg la dama wax dama yi ne leen foo fekk. foo fekk kuy mm. woote xutbu wala mu jaay diin mm. di yor ay alxuraan di ko fësal ci mbedd mm. sa imaan dafa tuuti mm-hmm. yaa nga ko wax mascarade lay nekk mm-hmm. gis nga camoufle yii kenn xamul lu ñu toogaale ak lu ñu nekk <laughs> xamu ko am diine dëggantaan fësuñu de dund imaan ah, dëggantaan ah. du ci pénc pénc mi wala ci public bi nga koy wax imaan àndul ak wax àndul ak coow te ku yàlla fees dell ci doo bëgg àdduna mm-hmm. ki aduna jaral nako li yeb yëpp muuru mhm. àdduna jaral nako xex nangam nangam mhm. ba pare xam nga lu tax ki taxaw ne liñu ñu nit mhm. dafa ndaw dafa tuti dina tëj nit ba mu nëb kep ku nek ci aduna bobu andok mom ja préparer sa bop prison nga def bon commencer jang bon voisinage pénitentiaire <laughs> comme ñun ñii li def c'est-à-dire loolu mooy li nekk parce que moom na ni taranga bi ëpp nit ku xamul taranga taranga bi ëpp mooy kaso ba pare mu ànd ak ñoo xam ni seen àdduna mosuñu mm-hmm. kontaan bégguñu ci seen bopp mooy ñi ma la wax mooy ñi mm-hmm. taxaw di accuser Pape Djibril ñi perte c'est-à-dire un journaliste ci micro un journaliste ci micro Barthélémy Dias nekk deux fois maire ah. Barthélémy Dias papam ne doomu ministre nekk actuel maire maire de la ville de Dakar Barthélémy jaar dem élections mm-hmm. defar Sénégal defal Dakar Sénégal Dakar way xam nga ñoom lan lañu wara jangat ñom ñom ñi wax xam luñu wara ñu war tiit mooy ñu ngi ci dëkk bu bon ak dëkk bu am ñu bon c'est-à-dire moy c'est-à-dire yow ño xamni ni ki def lu baax mom mhm. lañuy sanctionner Cheikh Sall parce que man dama def euh, local 2009 mhm. sama maire commune bobu mo nekkon meilleur mhm. maire en bonne gouvernance mo jël ndare man c'est la pareil ci politique locale 2009 5 ans bi ma conseil municipal sama maire c'était le meilleur maire ci bonne gouvernance bi mu demee élection présenter liste pour mom dañ koy voter ci bilan wala dañ koy voter ci bonne gouvernance mm-hmm. mo jël ndaare mm-hmm. Barthélemy fay def dernière émission mu ne mm-hmm. nga bañ Barthélemy wala nga bañ Dakarou xam nga moom la dama ne la parfois gis na ko sa da ngay gis euh, ben ñaar ñett euh, ci entreprise si ci wu buggaan nit en général sa patron bi ci kër gi ngay enal moom la la ne la Ousmane na ibbi buntu kasso yi xam nga moom moo taxawoon fi daane Macky Sall dictateur la dafay tëj day tëjaat nangam nangam. ci mhm. rañam dañoo jàppoon ni tëj du am. Mhm. na ubbi buntu kaso yi. Eh, xam naa ubbi na yokk cellules yi. ba pare yokk cellules yi. Mhm. defaraat infrastructure yu bees. yokk officines yi. mais officines yi seetlu nga dara. noonu leen gën a yaatal mais officines yi gën nañoo yaatu léegi ah léegi amoon na ay camouflé. non xam ne gis naa depuis dimanche. am na ñoom confirmation gis naa confirmation amee gis naa ko bu confirmation amee dañuy dañuy dañuy dañuy léegi xam nga ñu am na ñu bari ñoom dañ doon mm. làqatu. Mm. parce que dañ doon nekkoon ci doute bi. Mm. ndax sénégalais yi dinañ tranché ndax cohabitation affaire bi wóorul nangam nangam ñoo léegi comme am na dañuy def service yu joxe seen bopp <laughs> dañuy joxe seen bopp. <laughs> ñooñu ñooñu ñoo nekkoon <laughs> ci suuf dañ takk buum dem joxe seen bopp. parce que loolu dafa am ci àdduna dañ dem jébbal seen bopp waaw dañ dem jébbal seen bopp <laughs> ay xale bi c'est-à-dire loolu am yàlla baaxoo nag léegi nag loolu moom ma moo tax ma ne la soxlawul gis nga gis nga jébbal seen bopp na tëj soxor na tëj ah. jàpp ñëpp kese na damm micro ñëpp na damm plume yëpp ñëpp ba xam na ndaxal bi parce que firaaw na mhm. dañ ne ko xale bi juddu góor fii moo lay remplacer wallaay mu dem rey xale mu bi muy wàññi liir boobu si la liir bi juddu c'est-à-dire gis nga reñu firaaxu na waaw bu man ci rek laay jàngatee régime yi waaw ak namrut waaw mooy lan namrut mooy c'est-à-dire buur yooyu nga xam ne bu ñu yegsee mhm. du ñu am opposant mhm. parce que Ousmane Sonko buggul opposition non buggul parce que ñemewul opposition ak contraire mooy contradiction ñemewul aussi tamit presse. parce que ñem mosoo leen ko gis mu conférence de presse. buy def conférence de presse dañuy sélectionné. ay militants te question bu commencé taxaw dafay raf. ay militants lay jël sax moom. waaw ñemewul ñemewul. non ñemewu ko. influenceur politique la. dëgg la du leader politique. influenceur politique. xam nga un leader politique. <laughs> un leader politique. Mhm. da ngay da ngay da ngay da ngay da nit ñi dañuy xool ci yow mais yow moom dafay influencé. Mhm. par ci lu baax ci lu bon. nangam nangam. parce que kan mooy influenceur yi dem leen taal kër dem leen fekk kër gu ngeen dem di ngeen ah, fa fekk yow tam campagne bi ab bu mu ñëwee taxaw mooy li nga na benn nitu yàlla boo xam ne mm. nee na ma jour boobu tamit la xaw a jommi quoi mu ne mu ne kaso mm. kenn ko yéene nit te parce que moom yàlla da ko defal taraanga mm-hmm. te yëgul ni taraanga la ko defal mm-hmm. moo tax ma ne man comme moom yëgul taraanga la ko defal mm-hmm. suñ borom daf ko dañ suñ borom daf ko testé da koy testé pour mettre ko à la pratique. léegi nag Ousmane Sonko sénégalais yi du majorité bi arme lañ ko jàppee de. Mm-hmm. jàppee wuñ ko leader de. dëgg la non non moom la ko jàppee arme lañ ko jàppee de. Mm-hmm. xam nga ñoo wax naan dañoo jàppee jeunes yi cher à lañ jàppee cher à canon. parce que dafa am ñoom dañoo bëgg tiire. gis nga ñi toog nii di ci moom pour tiire. waaw ñi ñi dafa am ñu toog. dëgg la ñoo xam ne ni ñu la envier yàgg na. Mm-hmm. biñ la bañee yàgg na. ñooñu ñoo toog amoon fuñ ko waxee amuñu fuñ ko waxee parce que xamante toog naan cer euh, l' avenir de Ousmane hmm. Sonko Forest la tàmbalee waaw Forest Barthélémy Dias amul lu mu déggul ci réew mi hmm. amul lu mu déggul ci réew mi moo hmm. gisee ku interpréter avenir bu Bart te yow mi toog sa avenir wóorul te yow yow sa avenir yaa ngi ko dépendre yow mi toog ci micro bi sa avenir yaa ngi ko dépendre toog di waxal nit dëgg la léegi Barthélémy Dias nekk patron nga taxaw naan nga taxaw naan soo Pape Djibril Fall nekk patron nekk moom kese kese moom <laughs> parti chef de parti xam nga lu tax moom lay yenn jeunes yi bari interprète pap naan naan naan pdf xaw ma da ngaa jum waroo woon def li nga def jeunes yooyu mooy al toppe gis nga jeune yu en général duñ seen moroomi jeune raw leen xam ah, nga Pape Djibril li mu leen rawee mooy am patron politique foofu na xol yaa tàng waaw xol yi moo tàng gis nga jeune jeunes yi mu manceel ñëpp xam nga dangay ay jeunes ñooy toog di waxalaate man ak Pape Djibril mm-hmm. côté boobu ñoo fa nduroo mm-hmm. patron politique jeune du bu ko amee yeneen moroomu jeune am yi gis nga boo demee ci parti politique yi ñëpp mhm. xam nga ñi taxaw naan nii mais Pape Djibril mosu ko def benn faute rek la def mooy Pape Djibril dafa am ñoom dañoo jaay seen bopp mhm. daal ne ñoom mënuñu nekk patron amuñu mhm. ambition amuñu vision